léegi nag euh, defe naa jot na pour ñu euh, dalal invité d'honneur bi euh, sànq ba tey maa ngeen koy wax ci before bi parce que tey exceptionnellement ci télévision Futur Média dañuy célébrer soixante-dix ans yu Souleymane Faye moo tax ñu leen di euh, ñu proposer leen euh, before bu invité euh, d'honneur dina am itam after waaye afteur bi ce sera juste après waxtaan wi ñu nar a Cheikh ak moom ca kanam tuuti su boobaa nag on va vous donner la possibilité non seulement ngeen réagir moo xam ci réseaux sociaux yi wala sax ci téléphone bi ñu jël leen en direct ngeen commenter parce que bëgg nañu tey Sénégal yëpp célébrando ak ñun anniversaire ki nga xamee nii moo ñu defal honneur ñëw fekk suñu Euh, pour ñu waxtaane carrière bi répétition lay doon parce que depuis euh, euh, très longtemps dañu koy recevoir ci émission yi di waxtaan ak moom ci carrière bi donc carrière am lu ngeen miin la yéen sénégalais yi moo tax ñun tey pour sargal Souleymane Faye pour màggal Souleymane fay ñu occupé antenne bi yëpp jagleel ko ko ndax defe naa moom noonu la tollu xam naa ni tey bu nekkul woon ak crise sanitaire bile euh, kon euh, fii ñu ne dafay fees dell public bi ñëw sénégalais yi ñëw ay xaritam ñëw ay andi di jàmmam ñëw waaye tey ginnaaw mbir mi nii la demee maag moom ñooy jàkkaarloo respecté nañu distanciation sociale bi puisque 70 ans la am mag la du mag waaye dafa baax itam euh, boo nekkee ak nit euh, bu ñu nee lii boo ko defee di nga moytu euh, ñu nit ñu moytu donc dinañu jàkkaarloo léegi nii ci télévision Futur Média tey invité d'honneur Souleymane Faye dinañu woyal parce que ay woyam daf ñu yàgg bercé defe naa génération yu bëri la accompagné avec sa belle voix parolier bi mu doon dem nañu sax ba Souleymane day cartonné ci réseaux sociaux yi seetlu ngeen ni émission bu mu jaar euh, dañuy reprendre ay partie euh, ci TikTok bi Facebook Twitter Instagram comme quoi jamono bu ne ak la cay xew waaye Souleymane fay ànd na ak sénégalais yi ci jamono yépp bi mu tàmbalee nag euh, ak léegi mu ngi bëgg a yàgg sànq ci before bi maa ngi ko koy maa ngi leen koy wax yéen itam defe naa miin ngeen ay woyam sénégalais yépp ak fu ngeen mënti nekk ci àddina képp koo laaj euh, ci euh, Souleymane Faye dina am benn histoire euh, personnelle boo xamee ni dund nañu ko ak ki nga xamante ni mooy Diego Jules wala Souleymane Souleymane kontaan nañu tey ci ni nga ñu seetsee li tax ñu kontaan mooy lu toll ni sa anniversaire lu toll ni lii ñuy màggal tey nga xam ni at bu jot danga nga ciy ànd ak sa famille ànd ci ak sa xarit nga defal ñu honneur ñëw euh, pour ñu célébrer ko euh, ci télé bu mag bi defe naa ñun loolu moo ñu tax a gën a kontaan sànq ba tey nag ñu ngi lay xaar euh, ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo la fonk lool bëgg la gëmewuñ la Souleymane. Pape man avant tout je suis très soulagé. parce que li ñu ma nee Pape Cheikh Diallo moo lay invité sentir un soulagement. merci. parce que yow da nga bokk ci artistes yoo xam ne dañuy invité ay mhm. sewal. Mhm. xam nga di sulu seen i mbóot. Mhm. à chaque fois yow le côté positif rek moo la intéressé de l'artiste tu vois. et ça je tire chapeau. c'est important. waaw je tire chapeau pour ça. te am na kilifa yu mel ni yow. waaw mënuñu suñu devoir ñun sénégalais yëpp mooy sargal la. tire chapeau waaw sargal la merci. donc euh, voilà euh, j'ai fait mes dix ans. Mm. et euh, c'est comme si yàlla dafa ma may vingt ans. macha allah. xam nga. c'est comme si yàlla dafa wàññi samay at vingt ans. parce que j'ai soixante-dix ans te man cinquante ans lay dund. et puis feeñul sax. man cinquante ans lay dund. ku la jox soixante-dix ans physiquement man cinquante ans lay dund. dëgg mais euh, c'est donc euh, soixante-dix ans yi ma sax dafa ma jaaxal. dëgg la de. ma xaw a jaaxal. soixante-dix ans quand même. ma xaw a jaaxal. lan mooy sa secret. Euh, am ama secret moi je crois que dans am naa fit euh, def naa lu ne mais lépp lu ma dugg gis na juguma rek <laughs> dama ciy génn taxaw ne <laughs> am naa fit nag mais lépp lu ma dugg jiguma rek eh, eh. dama ciy def nànk eh. lépp lu may def jiguma rek mm-hmm. damay def nànk mm-hmm. donc je crois que le fait que je n'abuse de rien au fait mm-hmm. je n'ai jamais abusé de rien ni de l'argent ni de la femme ni de l'alcool j'ai fréquenté tout ça. Mm-hmm. mais euh, je n'ai jamais abusé de rien. Mm-hmm. Mm-hmm. j'ai toujours tenu à ma lii moom boo ko continué baax. donc loolu mooy sa secret. waaw mooy sama secret. bu njëkk bi. waaw te pourtant ñu ngi doog a commencé. waaw ah, waxtaanaguñu Souleymane ngi bi bu njëkk bi mooy. Mm. il faut jamais abuser de quoi que ce soit. de quoi que boo buggee gudd fan. parce que man bi may préparé émission bi maa ngi waxtaan ak euh, euh, ñi ma ci àndal. Mm. bi ñu ma nee 70 ans wu Souleymane fay la ñuy célébrer ci télévision Futur Média parce que ñun événement la. Euh, mhm. émission bi tey c'est un événement ci télé bi. Euh, événement la pour sénégalais yëpp. Euh, ma fàttaliku nii euh, bi ngay féete sa cinq ans man ak yow la woon. comme nii ah, ah. tey nga am 70 ans ñun ñaar ñu koy féetee. toogaat à tes 100 ans. yàlla nañ fi toogaat ba di màggal ah, say 100 ans incha allah. et ku la gis sax du la jox at boobu. mag laa <laughs> physiquement physiquement je le sens. mag nga la preuve. Euh, xalam un xalam deux <laughs> sànq bi may nuyoo maa ngi naan ku ci ñëwaat répétition lay nekk parce que sénégalais yi miin nañu histoire mais tey nga am soixante-dix ans euh, yan image mooy gën a ñëw ci sa bopp yoo dul fàtte ci diggante sa enfance ak bi ngay dugg ci musique yan nga dul fàtte euh, bu doon dañuy def rétrospective ci sa vie bon su bëggee ñu ne livre day yéex mhm. dama koy xalaat day gaaw boo ci bëggee bind livre day boo koy xalaat day gaaw day gaaw. mais lu mu gaaw gaaw am na ay partie de ta vie yoo xamante ni ay flash la comme appareil photo te bu flash bi génnee. donte bëri na te dafay gaaw. yaa yaa yaa y' a certaines choses yoo xamante ni forcément flash bi daf koy éclairer Souleymane. waaw je sais dans une vie il y a beaucoup d'étapes. Mm-hmm. l'adolescence mm. la jeunesse. Euh, étant marié dem ba nekk mag dafa ay étapes. y a certainement étapes yoo xamante ni daf la marqué. étape waaw waaw mais y trois étapes qui m'ont marqué mooy sama enfance. Mhm. sama jeunesse. Mhm. ak sama vieillesse. lan moo la marqué ci sa enfance par exemple. sama enfance li ma marqué euh, fàttaliku. li ma marqué mooy j'avais pas les moyens de mes ambitions. maanaam li ma bëggoon def aw nekk xale euh, bëgg lu rëy quoi. waaw waaw bëgg rëy waaw. ma teel a bëgg euh, tout ce qui est oto moto. Euh, sañse <laughs> yooyu waaw. pourquoi pourquoi parce que. Euh, ouais. tu avais des parents yu amul woon moyen lan moo tax. non j'ai j'ai mes parents sont très modestes. Ah. mais euh, j'ai jamais senti une pauvreté dans ma famille. comme nous autres. musuma sentir. ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk quoi c'est que man sama problème mooy sama problème personnel yi ko bëgg quoi j'avais des copains qui le parent était plus riche que le mien ouais. ils avaient des choses que moi j'avais pas c'est vrai et je pouvais pas voler <laughs> donc il fallait que me nekk seen gain pour ñu abal ma vélo. waaw voilà. <laughs> dans quel quartier c'était où exactement. moi je suis né à maa ngi juddoo 125 avenue Gambetta. en ville carrément. waaw ginnaaw ñaay cokkeer. waaw maa ngi juddoo kii maa ngi juddoo Nantec. Boy Plateau. waaw. Oh. tout plat. te <laughs> plateau à l'époque dafa tout ça c'est l'époque coloniale quoi. voilà l'époque coloniale. Dakar était calme. waaw Dakar était calme. était avait beaucoup sécurité. sécurité maximale. tu mhm. vois mhm. à 21h boo doxee amoo code dañ daan ramasse ko. yooyu pas de couvre-feu mais avec ça. yenn yenn heures yi boo ko doxee yoroo këyit moom ci woon problème. plateau dëkk tubaab la woon carrément quoi. waaw mais genre euh, euh, voilà. Mm, waaw waaw waaw donc on avait ça mais bon lu xam nga boo nekkee xale ñun affaire colonisation ñun mm-hmm. ñoo ñëw ci. ñoom mm-hmm. sa enfance rek ngay dund yow. Mm-hmm. donc enfant on était heureux vraiment. waaw yaa ngi doon jàng ban école. waaw maa ngi doon Malick Sy. ah Malick Sy waaw. Ah. Maïs la jàngee ma def sixième élémentaire secondaire rek. Ah. dama jeexal école bi rek bàyyi jàng. lu tax nga bàyyi jàng. dama doyal. <laughs> dëgg la de lu tax nga doyal. non sixième ndaaree ba sixième sëgg. doy na sëkk ma ne man jeex na. xam naa certificat étude bu njëkk ba. <laughs> te certificat boobu dafa fort. moo gën a mooy bac bu tey mooy bac bu tey mooy bac tey effectivement. donc liggéey ci da nga bàyyi rek après. non damay bàyyi sama yaay ne ma non dangay jàngi métier quoi mu reste à la maison dem jàngi métier. dem jàngi kon mën nga daaj. oui mooy son métier. mën nga defar fauteuil par exemple. mooy son métier. ba léegi yaa koy man waaw. fan nga jàngee loolu. Euh, maa ngi koy jàmbee euh, xam nga pompier. waaw ah, pompier waaw. mon oncle avait son atelier la ba et nous on sa de Tolbiac c'est à deux pas. Ouais, Tolbiac pompier c'est pas loin. Ah, donc euh, ma j'ai grandi aux alentours. ma maman m'a confié à mon oncle. mu mhm. jàngal métier. mu uh-huh. jàngal métier. j'ai fait quinze ans de menuiserie. quinze de menuiserie. oui oui. kon am na ay kër yoo xamante ni wala ay paa yu seetaan yoo xamante ni seen ay lal sax yaa ko daajoon. yaa non am na ñu ñu may sànn xam nañ li mu la. menuisier la mon vrai métier c'est menuiserie. c'est menuisier <laughs> donc tey menuisier bi mooy def. mooy def anniversaire am menuisier musique c'est ma passion. après ma dem bi ci biir bi gis na daal li ma ci am ci musique moo ëpp li ma am ci bant bi. Mhm. moo tax ma bàyyi bant bi. <laughs> dëgg la mais waa may bàyyi bant bi dama jàng ba mu mokk. <laughs> dama jàng ba mu mokk man euh, moom laay conseiller musiciens yi ndaw yi. Mhm. defal musique mais jamal jàngi métier. amal métier en même temps. un jeune war am métier. en cas d'urgence mais musique xam nga pour ñun du métier. mais métier la. Mhm. mais boo ci réussir. <laughs> waaw boo ci réussir c'est un métier. waaw mais boo ci réussir moom. <laughs> mooy loolu c'est <laughs> donc voilà il faut ñuy jàng métier si boole quoi. ok voilà beneen tranche bi wala beneen étape bi la marqué. Euh, ci sa vie beneen tranche mais quand je suis marié. enfant jabar doom tout ça. nettali ma loolu itam. c'était un peu compliqué. pourquoi. parce que j'étais jeune j'avais envie de voyager alors euh, je suis parti en voyage j'ai laissé famille ici pendant des années. ça mm difficile. pour pourquoi c'était difficile. difficile parce que da euh, dem xam nga Europe question da ngay dem rek jekk tey. Mhm. mais pour ñun ah ngay dem pour ñun da ngay ñëw rek for xaalis bi. waaw loolu la ñuy jàpp. lan moo tax nga takkaat weer yi nii. damay weeje quoi. ku bëgg a weeje quoi. mooy coono bi ñàkk ñalu yu doyul yeeg. <laughs> dëgg la de yooyu. <laughs> waaw je me demande. kon parce que guddee tëdd teel a yeewu activité yi. c'est jamais évident waaw machine noctambule du ma nelaw guddi. tant que nodduñu. doo nelaw du ma tëdd waaw. da ngay toog même su ma liggéeyul. c'est-à-dire que tant que ma sonnul du ma nelaw. fu ma nelaw fu il faut nga sonn dëgg ko ma tamal sama yaram sonn. waaw bu ma sonnul du ma nelaw. sa yaram dem ba tàmm loolu. léegi ñu ngi nekkoon ci tranche de ci tranche de vie yi. Mm. comme tey 70 mm. euh, ans wu Souleymane fay la ñuy célébrer mënul ñàkk euh, ñu ñëw ci ay étapes. on va pas détailler parce que li xew ci sa vie dafa bëri wax nga ko sànq buñ ko doon bind livre dafa yéex boo ko dee xalaat dafay gaaw léegi nag ci xalaat yi ñu tànn ci quelques étapes ñu ngi tolloon ci euh, euh, sa jeunesse takk jabar am doom voilà jabar am doom bàyyi fi xale yi dem France waaw c'était pas évident non mhm. non non elle était jeune mhm. comme moi mhm. donc euh, je me suis dit bon mu yàq jeunesse am bon xaw ma kañ lay ñibbi bon c'est comme ça. boo ko ne ko garaawul quoi c'est comme ça on a divorcé. ndeysaan. elle s'est remariée. Ouais. tout va bien. macha allah mais au moins bàyyi ma ko fii. Uh-huh. dem dox dox sama dox quoi xam nga. Euh, surtout que période boobu tukki dafa dafa dafa dafa métti ah, woon quoi. bon bon léegi la gën métti jamono yooyu sax c'est encore mieux. oui parce que comme man amoon naa métier je suis menuisier béniste bon je suis disque jockey. Mm-hmm. en Europe j'ai pas eu de problème pour le travail. mais gisee yombul woon quoi. comme léegi euh, ni gisee yombul mais le temps ngay stabiliser. waaw ngay stable. ba am say kayit. ça prend des années. ça prend du temps. 4 ouais. 5 ans 6 ça peut même être 10 ans. Ouais, ouais. tu mal euh, les gens yi bàyyi fi jabar doom dem toog fa 15 ans. 15 ans 20 ans am na ñu def. 20 ans am na ñu 30 ans c'est impressionnant même bu àndoon ay milliards. mais galère yooyu ñu galère sa ginnaaw noonu. yooyu duñ ko fàtte jamais. dëgg la de. tu préfère mu am xeer sax ñu bokk lekk ko. Mhm, ensemble. ah. Mhm. <coughs> bu ñu amee yàpp bokk lekk yàpp bu ñu amul yàpp ñu am daal bokk. mais on bokk tout quoi. Ouais. on fait et je vois mal un père de famille qui vit bien en Europe et qui envoie ay xaalis tous les mois rek foog na jaanam wàcc na. Mhm. parce que l' enfant il a besoin de voir son père. Mm -hmm. c' est pas l' argent yi nga yónnee pour mu équilibré pour mu gis papam gis yaayam. c' est une bonne présence. mais du ay mën a yónnee gars yi bu ñu yónnee mën a fan si jàmm non non. dañ si jàmm booy ñi fi di galéré. dëgg la waaye foofu di noos booy ñi fi di galéré. Mhm. <laughs> moi ah, non. tu as préféré daal. ah bàyyi ko mu bàyyi ko mu mu mu bàyyi ko mu libre mu dox ah, doxam. d' accord tu vois. d' accord beneen étape bi muy troisième. mais étape bi mooy euh, boo demee ba am soixante ans soixante cinq ans. ay maintenant foofu nag ngay nekkee jeune nag. ah là ça devient sérieux quoi. Ah. parce que euh, tu es près de la mort. Tu vois Pourquoi après de la mort parce que bon, ça m'étonnerait que je vive 100 ans. Ça m'étonnerait. bu ko amee bu ko amee alhamdulilah mais bon dund bañ lay laab di la couche moom yàlla na yàlla musal. dafay metti. waaw. Ah. c'est pourquoi au Sénégal faut ñu créer maison de retraite. maison de retraite mais est-ce que bokk na maison de retraite est-ce que bokk na ak ci suñu aada. parce que fii boo demee ba nekk mag da ngay nekk ak njaboot gi. nekk ak sa famille am na ñu lay. toppatoo il faut ñu il faut ñu xamal leen maison de retraite lan lay jariñ pour ñu comprendre maison de retraite lan lay jëriñ man sama jabar tubaab bi dama ko ne yow pas que yóbbu papa maison de retraite. Mm-hmm. mu ne man sama papa bu ñu nee ma koy ba koy laab di ko sang di ko couche. pudeur je préfère yóbbu ko foo xam ne damay fay ñu koy defal yooyu yëpp. Ah, saa yi ma yéen ko fekk mu set propre jàpp ñaamur. yow doomam du mën yenn yi waaw ci côté boobu boo ko xel nangu na ko. donc il faut le faire au Sénégal. parce que y a des mhm. moyens y des gens qui sont riches. Mhm. qui pourraient se permettre d'avoir ça. est-ce que ça veut dire que yow da nga ragal yooyu danga nga ragal vieillir da ragal dee. non ragaluma dee mais euh, boo xamul naka ngay dee ak fan ngay dee xamoo parce que nit ki li mu xamul moo ko may jàmm nit ki li mu li ko umpale moo ko may jàmm. mais lu tax nga ragal lu tax. non ragaluma à partir de soixante ans peut-être euh, mu war la marqué. non à partir de soixante ans la vie devient très précieuse. Ah. très précieuse. dëgg la tu vois. Euh, comme de comme on dit euh, le temps qui me reste c'est très précieux. xam nga. je veux dire c'est très précieux. c'est de l'or pour moi. moo tax loo ciy def. les années qui me restent. <laughs> xam nga. <laughs> yaa j'y tiens beaucoup. j'y tiens beaucoup. Mhm. je suis heureux d'être vivant encore. Mhm. le, le temps qui me reste là. Mhm. et ce temps qui te reste là. Ah. comme temps bu précieux la. waaw lan nga ci def peut-être am ñu am at bi nga am tey. am na ñuy anniversaire comme yow. am soixante dix ans tey. am ñu am soixante ans. am ñu dugg ci parti bii nga nekk ci mm. seen vie mën nga leen inspirer comme tu nous as toujours inspiré. à mm. travers tes paroles lan la ci nit war a def wala lan nga ciy def yow. puisque temps bu précieux waaw euh, moo xam nga ñu Sénégal dafa bari ñoo xam ne dañuy màgg màgget ak seen xam-xam dee ak seen xam-xam ñu suul leen ñu ci bàyyi dara. yenn âge yi boo ko amee da nga war a li nga xam da nga war a laa biir sax xam-xam. wane ko bàyyi ko fi. am ñoo xam ne duñ ko fi bàyyi dañuy dee ak moom. dëgg la tu vois. et puis man góobu ma retraite góobu ma retraite de. pourquoi man gëm naa ne yaa ngi yow mën a jóg dox wax mën nga liggéey. dëgg la man góobu ma retraite. dëgg la non damay liggéey. ma góobu ma bon léegi mag nga booy ñoo lay gaara quoi yow léegi mag nga jàpp paaka quoi noo yoo nga bàyyal ñu géral la <laughs> problème jox la kurus nga dem ci jog gi nekk ci keppaar gi la da nga xool jigéen ba kurus gi wadd <laughs> waaw yooyu non man du mos yooyu de <laughs> mais Jules. man tant que maa ngi dund maa ngi mën a jóg wax damay liggéey. <laughs> mais Jules ñun suñu paa yi loolu lañ leen xamee te kurus dem jàkka toog grand place waxtaan. gàddu loxo doxantu yaa ngi tant yaa ngi. paa yi am 70 ans yëpp loolu la ñuy def. non non non. ok xanaa Afrique la. mais bu dee Europe. Mhm. ñoom retraite. c'est de faire enfin tout ce qu'on avait envie de faire. xam nga. retraite bi c'est c'est une vie di commencer. ok. amatuñu ay contraintes ay horaires amu ci yooyu. Uh-huh. léegi nag xam-xam bi ñu amoon. Uh-huh. xam-xam bi ñu jàngoon. Uh-huh. ak expérience yi ñu amoon yëpp c'est l'occasion de le concrétiser. comme yow. waaw tey am nga soixante-dix ans. waaw euh, lan nga feerul woon. Hmm. et que toll nga ci envie de le fair maintenant. voilà euh, wax nga ni enfin. Ouais. Euh, je vais m'occuper de moi. lan ngay faire nii te daawoo ko faire. voilà nga bëgg koo faire nii. par par exemple. raconte-moi tey dama bëgg ñu waxtaan sénégalais yi gis mm. Souleymane fay bi xam nga mm. dafa am Souleymane fay mm. am Souleymane Faye bi te yow patrimoine euh, national nga ñun ñoo la moomal suñu bopp donc bëgg na ñun nag découvrir parce que yi ngay wax yëpp depuis sànq defe naa interview nga ba tey euh, euh, peut-être waxee woon nii wala lii ñu xam tey xamuñ ko woon donc li nga feerul woon wala mosoo ko woon faire léegi nga am soixante-dix ans enfant yaa ngi ko war a faire. voilà yàlla par exemple euh, moi j'ai toujours rêvé de travailler dans le monde visuel. Ah. télévision tout ça tout le monde me connaît seulement sur le point chanteur parolier poète je suis pas poète je suis pas parolier moi je suis mais les gens me disent parolier poète. Ah, ñun ñëpp loolu la ñuy wax. parolier voilà poète nga voilà philosophe. philosophe mais mais, mais moi ouais. je j'écris pas en tant que ça. j'écris naturellement. ça vient comme ça oui. oui. Moi, tout ce que j'écris, je l'ai vécu. C'est un génie. Je n'ai jamais inventé. Je... je l'ai vécu. ba ci li ngay way. waaw oui yëpp yëpp dama ko dund. ba ci texte yi ngay wax yëpp dama ko dund. ci wolof ci français. yëpp ko dund loo wax mu frappé. tout ça, je l'ai vécu. d'accord maintenant je me dis je veux montrer mon talent sur le plan visuel. sur le plan visuel mooy lan. spectacle télévision. Mm -hmm. télévision. Mhm. Euh, ma mm -hmm. studio Mm-hmm. Youssou Ndour bind naa ko lettre. Mm-hmm. Youssou Ndour bind naa mm-hmm. ko lettre jox ko. dafa grand man dama bëgg a job télé. man dama bëgg a job télé côté visuel nii. wala boog dama ci ay. mais dama yàgg club Méditerranée yàgg France dama ko yàgg liggéey. mosuma ko exploité Sénégal. mu ne ma grand bàyyi ko sama loxo. jox na lettre bi nouvelle ba tey voilà. alors ci laa la bëgg a tontu. Ah, ce premier cadeau. et c'est une bonne nouvelle. ce premier cadeau. Mm, mm. mooy ni à partir de ce soir production audiovisuelle bi ngay wax di nga ci ànd ak télévision Futur Média ah, à partir de ce soir je souhaite que ça voilà c'est le premier cadeau et comme un hasard on en a parlé en production barki borom Touba a balaa balaa ñuy tàmbali waxtaan bi sànq rek waxtaan nañ ci euh, man ak euh, directeur u télé bi Ah. donc xam naa au sortir de euh, soirée bi tey euh, dinañu ko concrétiser parce que jot nañ ci waxtaan ak Youssou Ndour effectivement moom nag euh, mënul lu ñu wax rek mu wax ne lu ñuy waaj a def mu wax ko xam nga donc premier cadeau bi tey ci ses soixante-dix ans sa premier li nga bëggoon faire te daawoo ko faire te bëgg ko faire mooy production audiovisuelle à partir de ce soir jàppal ni concret na et di nga ci ànd ak équipe de production yu groupe ah, Futurs Médias voilà dañu bëri ay nag donc à partir de ce soir euh, di nga euh, bokk ci suñu famille production muy loo a bëgg pourquoi yàgg naa ko bëgg parce que gars bind weer lañ la xamee mhm. mais côté cinéma théâtre comédien cabaret musique yooyu. da nga man show. mais nii nii nii dans la foulée. tey ci sa soixante-dix ans. c'est vrai que ñun ñoo la war a bégal mais. Euh, soo la doon casting ne la euh, defal ma euh, scène defal ma théâtre loo may may nii nii ci waxtaan bi ci ambiance bi sa 70 ans samedi soir TFM ñun ñaar ñu toog di waxtaan nii euh, parce que inspiration yi ne nga doo ko bind ça vient comme ça tu écris naturellement tu mm-hmm. racontes une partie de ta vie ma casting la par exemple qu'est-ce que tu ferais pour moi léegi nii. moi j'ai on peut parler sur l'enfance on peut faire une émission sur la retraite. Mm-hmm. faire une émission genre euh, Reine du Mbalax. <laughs> Reine du Mbalax. <laughs> Il y a le roi du Mbalax, il n'y a pas de Reine du Mbalax. Dëgg la de. Euh, le roi du rap. Pourquoi pas? <laughs> Pourquoi pas? Oui. Non. J'ai tellement de trucs à faire. Ouais. Euh, ils ont fait, ils ont fait, euh, elles sont toutes belles. Oui. Ils sont tous beaux. Quand même. su boobaa man nga ciy remplacer. <laughs> tos boo yaa ko defoon à l'époque yaa bu dee defar ko boo kenn du ko xam. de. yooyu am avant am après. waaw. <laughs> yóbbu ko ñu wot ko. non non tu parles euh, de. de de de de ku la gis ak sa look. da nga sañse. la scénique la scénique quand tu montes sur scène. Ouais. j'aime bien au fait au fait quand j'étais jeune j'étais j'étais mannequin. ah en Italie. mannequin nga woon ah, Italie. Ah. ah loolu ça on ne savait par exemple ah. woon jaay yére. <laughs> di ci toilette. d'accord ma fay sañse di ma fay. parce que sur scène lu ne ngay sol. waaw waaw sol nga robe sol nga gaaw sol nga ndoket. di ko jokkee ñu fay mais bon euh, ah, pour la retraite dama bëgg ubbi sama boutique. quand même j'ai créé ma société. ah yëguma ko. société bi loo ciy liggéey. production complexe art et musique. d'accord. pour la retraite donc de def menuiserie ébénisterie restaurant jënd jaay import export mhm. musique bi kat bu continuer nii moom doxatul day métti day métti kay faut que musicien ut beneen pexe bu dul woy ak tëgg <laughs> ok sinon nag day métti voilà à propos de musicien tey c'est vrai que ñu ngi waxtaan mais bu ci kanamee tuuti mhm. euh, Souleymane Faye def ñuy defal live voilà les mhm. musiciens sont là Euh, gëj na ñoo tëgg malheureusement ak Covid bi euh, y a des plans B euh, tey soirée spectacle la mais waxtaan bi mënul ñàkk. parce que dafa am yu ñu bëgg a génne. ci suñu Souleymane Faye national 70 ans la am. je rappelle que juste après waxtaan bi ak moom di ngeen am possibilité yéen sénégalais yëpp ngeen di participer en direct. woyal ko joxe seen ay messages joxe seen ay témoignages parce que nit ki itam di ko sargal ci dundam. dafa gën a di am solo te ñun ñëpp xamante nañu ñoo dëkk. Euh, fii ci réew mi ñoo ko bokk Souleymane suñu Souleymane Faye la donc comme patrimoine national la on vous prendra tout à l'heure comme ça vous ferez euh, vos témoignages en direct euh, ci télévision Futur Média Souleymane donc à part production bi nga bëgg def comme faire yi foofu la ñu toll ci fii nga toll da nga bëgg a des choses yoo xamante ni tu as eu envie de les faire mais malheureusement t'as pas eu le temps de le faire maintenant nga am 70 ans mm. ko faire ak yan par exemple bon je prépare mon dernier album ah parce que après album bi dootuma bindati d' accord xëy na naa bind ko joxe quoi mais bind moom bu ma wax <laughs> donc je prépare mon dernier album am naa sax ñaari extrait uh-huh. ci album bi euh, euh, respect ak pédophile. pédophile on écoutera on mon dernier album qui est vingt vingt quatre titres. vingt quatre titres macha allah. aussi euh, de Aziz Aziz Seck. waaw ah, mi ngi génn album am. macha allah donc album bi li bale bi fecc nii. Mhm. Aziz Seck moo ko tëgg. voilà à propos de bale boobu balaa ñuy àggali waxtaan bi quand même euh, ñun fi Sénégal dañu amoon euh, am nañ ko ba léegi. Mhm. ay majorettes. ay majorettes euh, waaw c'est venu d'ailleurs. Mhm. ñu ràññeewoon ci. Doudou ko ba Rose par exemple. ràññeewoon ci ay jigéen d'habitude dëgg bi benn la et que souvent ay euh, jigéen lañ ci daan gis mais depuis quelques jours maa ngi gis ni yow da nga am ay majorette yu góor on dit pas majorette chez góor ñi on dit les majors donc muy le majors de Souleymane Faye oui, euh, oui. bon major yi bon man amoon idée bi yàgg na mhm. mais euh, son problème majeur mooy euh, j'avais dit que le mbalax a un problème mhm. pourquoi on n'arrive pas à internationaliser le mbalax parce que là, un problème de problème euh, je crois ils m'ont pas compris je que le mbalax le problème de mbalax c'est un problème de beat il n'y a pas de pied qu'est-ce que c'est un pied mbalax amul pied pour euh, amul pied ku ku ku ku amul pied bu toog hmm. pied bu tàkk amuñu ko mënuñu ko internationaliser hmm. bu amee pied Japon bi Suisse bi Allemagne bi ñëpp dañ ciy fecc. loolu moo indi euh, par exemple nasaraan buy fecc mbalax day mel ni marionet voilà mais nasaraan nasaraan boo xam ne xam na mbalax day fréquenté sénégalais xam na. riibu mbalax mais ku xam mosul dégg mbalax. Mhm. boo ñëwee dóor oh c'est compliqué. amul pied. Mhm. bon boo ko waxee dañu fa na meen saboté dama bëgg sama dëkk. dama dëgg sama bëgg. Mhm. te am te amu du ma problème boo xam ne géwél laa ngay wax laay waxal bi bu mu am pied taas gin tataaj tas gin randan gin taj taj ka gin ka gin rataj taj ka taas gin e mu laaj ca gin ka cëkka ding ragi gin pied baa fa tout le monde danse c'est vrai parce que dégg nañ ko parce que pied bi mu nga fa ah donc pied bii la amul voilà ce qui veut dire que mbalax bi je viens de comprendre bu amee pied bii ngay wax musicalement parlant. Ah. kenn attanu ko kenn attanu ko. mais amul lii. amul lii lu tax defuñ ci lii. xalaatuñ ko. lu tax lii manqué ci. xalaatuñ ko gis nga bàkk yi bàkk yi bu ànd ak vent suñu bàkk sénégalais yi ba defee vent da koy lire da koy déchiffrer di ko lire mais bu amul mélodie du comprendre. Hmm, day endiablé ci moom. alors que mooy rythme bi ñu dégg ñun. waaw parce que amul mélodie. Ah. et aujourd'hui j'ai montré ce que je voulais dire que le mbalax amul pied c'est ça un pied mooy bale bi mooy monte ni beneen jàngat la pour peut-être musicien mbalax amul pied oui. bu amee pied jazz maa ne sax dañuy jàng si ñun mhm. waaw. paraba takkaci dakkata parara takkaci dakkata parara takkaci dakkata daaro bay tak ma ba mi vent pababa takkaci dakkata pababa dañ koy lire mais le problème il y a pas de pied oui. c'est technique et très professionnel et voilà on apprend amul pied mag pied kenn atunuñu quand même kenn atunuñu et maintenant major yi ñoom vraiment mën nga leen ñu répété waaw présenté majorité waaw ñu benn ballet mhm. pour que ballet boo xam mën nañ ko mhm. mën nañ défilé mën nañ mën nañ participer ci ay spectacle mhm. mais je mais j'ai choisi les meilleurs danseurs du Sénégal parmi les meilleurs danseurs du Sénégal booy ils sont de Rufisque uh-huh. donc euh, non non il y a une émission de enfin chaque année la Oscar des vacances. Oscar des vacances, oui. Oui, ils ont gagné, ils ont gagné des ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut les retrouver ouais, ouais. le premier cadeau que tu nous offres ouais, parce que tey anniversaire soixante-dix ans nga mais yow yaay offrir cadeau yi voilà. aux Sénégalais donc c'est un groupe de danse c'est les majors de Souleymane Faye mais bravo les majors de les majors de Souleymane. et puis dañu dañu fecc li nga expliqué mooy pied bi nii. bu ñu ko defee ci mbalax bi dinañ ko mën a exporter. parce que ça ça a toujours été en débat. mais balaa musique bi d' abord ces majors là. Mm-hmm. ñoom dinañ mën a fecc feccal ñëpp di def ay spectacle oui waa c' est danseur. Uh-huh. Euh, il faut le spectacle. Mm -hmm. bon il travaille avec moi. Mm-hmm. depuis deux mois. depuis deux mois c'est bien. Mm-hmm. Parce que, bon, jou vais pas te mentir. Mhm. Ce projet-là, uh mhm. -huh. moi, j'ai créé une émission qui s'appelle Détendez-vous. Ah, Détendez-vous. Détendez-vous, wow. avec ah. Alors, moi, euh, je suis TV, Diallo. Moi, je tax ah, xaw ma. mais lan lan moo nekkoon concept bi détendez-vous xanaa ay canapé ngay teg rek ñu détendre di di la. déglu non Il y a comédie, musique, spectacle, humour. et débat de la société quoi. waxtaan Sénégal nii rek suñu biir nii rek. lu tax indiwoo ko TFM. bon parce que euh, il c'est toute une organisation. d'accord d'accord d'accord d'accord. Euh, j'ai déjà mis des sous dedans ah. Ouais. j'ai mis 3 millions. waaw. en répétition costume. Mm-hmm. tout ça tout ça j'ai mis beaucoup d'argent. voilà euh, mais. bu léegi daal gisuma feu vert quoi. allah comme à partir de ce soir. Euh, dinañu ànd ak yow ci sa ay production hmm. xam naa dinañ ci euh, dinañ ci dinañ ci liggéey. ah j'aimerais bien. waaw ci liggéey dinañ ci liggéey. dinañ ci liggéey j'aimerais bien parce que Youssou sama waay la. Mm-hmm. liggéey kër Youssou moom bon enchanté. lu neex liggéey laa bëgg quoi. alors parmi sa ay am nga 70 ans. Mm-hmm. est-ce que am na ñoo xamante ni yow xam nga ni ñii. mën nañu assurer relève seen pap ci musique ci art ci hmm. poésie dans la famille mm -hmm. dans la famille tout le monde chante ah ñoom ñëppay way tout le monde chante mais dañuy jàng <laughs> d'accord bon mais tout le monde chante euh, mes enfants ma fille chante mes garçons chantent mais tey dama bëggoon présenter à mon fils Cheikh. Cheikh Ndigal. Cheikh Ndigal waaw ki ma tudd sama sëriñ. waaw bu ñu travaille avec moi. Uh-huh. depuis des années. Uh -huh. donc euh, dafa génn benn singalam. Mhm. di wax ci booy dugg ci gaal yi. waaw waaw vraiment ma déglu ko mu neex ma trop. ok bëgg naa nga présenté ko ci émission Pape Cheikh bi. waaw mënul ñàkk donc loolu mooy suñu deuxième cadeau. waaw tey mooy anniversaire mais moom moo ñu indil ay cadeau. Cheikh Ndigal doomu hmm. Souleymane fay la. Hmm. Souleymane fay nag ci kanam. Euh, dinañu tëggal hmm. spectacle. live. ñu ñëwaat ci euh, xarit. Euh, ñëwaat ci ay œuvre parce que daanaka woyam yëpp classique la euh, des chansons yu jëlul benn riide euh, li ko waral nag mooy borom xam-xam bi mu doon euh, Souleymane patrimoine national la waaye dañu tàmbali di waxtaan mu ñuy jox ay cadeaux pour fêter ses soixante-dix ans mm. Cheikh Ndigal nag laa bëggoon ñu àndandoo découvrir ko ak woy bi nga xamee ni génn na ko son papa qui mm. valide ça veut dire que Cheikh Euh, c'est parti pour mu bokk moom itam euh, ci artistes yi gën a mag fii ci Sénégal j'aimerais qu'on l'accueille sur scène bu ko defee mu euh, présenter ñu li mu ñu indil tey ci soirée spéciale 70 ans Souleymane Faye ci télévision <laughs> bravo bravo et bonne chance parce que tey defe naa bokk na ci sa première fois nga jaar ci télé ci sa kanamu papa qu'est-ce que ça te fait très rapidement. Euh, bon maa ngi leen di nuyu di ziar di ziar di seetaan waaye moom mbégte bu rëy la parce que maanaam paa bi bu may lu may yóbbu bari. waaw maa ngi def benn kii boo xam ne night show. waaw jaaroon naa ko. tey yàlla longtemps waaw ak yu ak yu bëri. waaw kon tey sant yàlla rek ma fi teewaatee. Uh-huh. tamit ñaan sama papa gudd fan ak wér gi yaram. amiin amiin. waaw ni ko bëgg njaboot la. waxuma ko ndax li mu nekk sama papa ak yooyu. mais ñun mën ñu ko fay daal. di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram. waaw jërëjëf. nekk artiste nekk doomu Souleymane Faye ak ni mu toll ci réew mi est-ce que yomb na pour yow. non musul yomb. que man mun naa ne euh, Sénégal ah, waaw waaw waaw waaw waaw bravo on se verra bientôt d'accord. allez bon courage on est très content lii mooy sa cadeau ci moom ah. bravo waaw comme Baye Fall la waaw. Cheikh Ndigal la la tuddee nga takkal ko kurus bi <laughs> voilà bravo Cheikh Ndigal et bonne chance hein pour la suite. c'est parti pour mu nekk un grand artiste Souleymane qu'est-ce que ça t'a fait bi nga déggee sa. maa ngi am chair de poule sama bëti mu ngi taa voilà. waaw je suis très ému parce que. Euh, j'imagine. boo xamee xale mu nekk tuuti. xam nga. yàlla may leen gudd ah. fan ba fekkee mu màgg am jabar mi doom <laughs> nga fekkee ko nga am say sët quoi am say sët waaw sët sax ñu ngi fii ñëpp ñëpp gi sa sët yeeg ñëpp ñëpp a ñëw tey quoi waaw c'est ñoom ci euh, respect ñoom ñoo war a fecc ci respect du de façon euh, bokk na ci album bi nga ne moo nar a nekk sa dernier album euh, on va écouter ça tout à l'heure léegi nag Souleymane dama bëggoon nag nga woyal ñu parce que man musuma gis lii non seulement tey sa anniversaire la. man je toujours ému ah nga baal ma <laughs> voilà. tey sa anniversaire la normalement ñoo la war a jox cadeau. mais yow yaa ñëw. Euh, pour jox cadeau sénégalais yi. voilà euh, voilà j'aimerais qu'on revienne euh, sur quelques-unes de tes chansons. Mm, mm. caabi bi par exemple. par exemple qu'est-ce que ça te rappelle. ah. way la boo xamante ni tey ku ko mës déglu rek. sa sa yaram dafay daw. soo gi. par exemple way mm. la boo xamante ni dafa bokk ci suñu vie euh, mm. depuis des mm. années yëguloo ma nag waxatuma ko parce que moom hymne national la elle fait partie des euh, bokk na ci way yi nga xame ni boo ko dégloo rek di nga xam ni lii wayu Sénégal c'est nous quoi c'est nous quoi <laughs> donc j'aimerais c'est nous dans nous ñetti yooyu trois normaux laa koy tuddee ok nga tàmbali ak trois normaux yooyu caabi ji ak Souleymane Faye en live et en direct ci télévision Futur Média. tey dañuy célébrer les soixante-dix ans de Souleymane Faye. merci sur scène. si jëgër gi muy diggi njollooro bu diggal bi tëju naa mari tëj na dem na caabi bi laaj ko naanu gànnaar bu ñuul kuk bi ci bitig bi tey jëpp a gisuma ko si ngi dëkkandoo bi soxnaa ni na xale buy jooy ci biir xale baa ngi jooy bàyyi ana yaay booyo xaw lu ma koy lay mi xel ne jël bootu bi boot ko dam damal ko tax mu noppi moom mu dellu jooy bàyyaana yaay booyo sama xol bi jeex na mi xel na te ngaa jël dasat gi soom bi bii def ci meew bi sukkar ko tàngal ko jox bu jigéen bi tëju naa mari tëj na dem nag caabi bi je suis arrivé à la maison À une heure de l'après-midi, la porte était fermée. Ma femme partit avec la clé. Et j'ai demandé aux voisins toute la journée, ils ne l'ont pas vue. On ne sait pas où elle est, mais pourquoi Elle s'est barrée avec la clé. Notre cher enfant qui pleure. Oui, maman, je ne sais pas où elle est, mais pourquoi Elle s'est barrée avec la clé. L'enfant continue et chiale. papa xamatuma lu ma koy lay ni xel ne te ngaa jël soosu duma daa bii tàngal ko def si ñàkk bii jox ko bu jigéen bi tëju naa mari tëj na dem nag caabi bi caabi bi caabi bi la porte elle est fermée ma ni dem na caabi bi doxal He's gonna be the key. Arrivata a casa alle due di mattina, la porta chiusa mia moglie, partita con la chiave. Il nostro bambino che piange, dove è partita la mamma, non solo se ma perché è partito con la chiave. Ciao baby. yëkkër bi ci ñu naa mari caabi bi xale baa ñooy caabi bi l'enfant qui pleure caabi bi bambino che piange bu jëkkër bi ci ñu naa mari sëñ bi na Mariama daawul jin tàgg fa mu ne ba tuuma fa mu ne waxtu bi fitnaal na ma Mariama daaw la gën tàgguwuma fa mu ne ba heure bi jaaxal na ma Ibu doxal ndem si yàlla si soogi ndem si yàlla si prospère ñang xalam Seydina Issa Wade ablo ablo Burkina Faso ko may grand Cheikh Tidiane Tall xaram sigi ndigale a di gërëm Omar Sow di gërëm Ousmane Sow di gërëm Sadekh Sow Aziz Seck Ibou Konaté Janvier la batterie ewoon fi Cheikh Alou Baye Fall Mamadou Thiam salut top mu yàgg suma xel mi tukkee dama fi amoon benn xarit bu baax buñ naan woy songi ba mu demee ba tey ma sañoon say yu ma yeewootee jullee amoon naa fi doom day bu baax bu wóor buñ naan woy songi ba mu nelawee ba tey ma sañoon saa yu Seydi Sogi dafa taxaw jàkkaarloo ak man léeg ma waxtaan ba mu yàgg sama xel bi tukki Seydi Sogi dafa taxaw di waxtaan ak man man ma dellu fàttali gënu ñun ba ñu xale nga mu ñu woon ne ma sëñ ngi ñëw ñun dañuy dee ba nga demee ba tey ma sañoon saa yu jullee ba ñuy gone nga mu ñu woon sax ne ba sa nga ñëw nit dafay dee yéex ba nga demee ba tey ma sañoon maa tudd si jaaree fa ragal yàlla waaru ci yàlla sëri abattoir soxlawul béjjén doo fi amoon benn xarit bu baax buñ naan ba mu neree ba tey sañoon balaa maa tëddati jullee amoon naa fi doom day bu baax buñ naan wooyee sangi ba mu neree ba tey sañoon saay ma yeewoote jullee oo oh, sangi fi woon di ni soogi kenn la fi woon di dootul ñaar fokki waajuram ni soogi kenn la fi woon di dootul ñaar toppatoo njabootam ni soogi kenn la fi woon di dootul ñaar fonk liggéeyam ni maam ni lay ma ca yokk dégg naa la prospère ñang maam bii Amran Seydina Issa Wade Ibou kooku ba Ndiassane ma yaakaar Cheikh Omar Foutiyou Cheikh Bamba ba maa ngi géew toppatoo ma yëguloo ma ba maa ngi bëgg ñibbee faale woo ma yëguloo ma ba maa ngi gëmentoo restaurant faale woo ma yëgoo ne boo noppee ma jaaxle boo meree demi huit ma gënu saye yow a fas sa jee damay dox xalaat yërëma falewu ma ba maa ngi bobbale xamuloo ma ba xamoon maa ngi yow duñu werante mukk waxuma la ak di xuloo ak di ŋaayoo ba ci waaj a tàggoo yërëmoo yëguloo ma yëguloo ba maa ngi bëgg ñibbee toppatawaa ma yëguloo ma ba maa ngi bëgg xàttee mu ñu nu loo sama yëgoon ma sonne nag may bàyyi ma noppaloo fonk la doxal le moral, toi tu t'en fous. J'ai maigri, j'ai grossi, tu t'en Je ne me sens pas bien, c'est ainsi je manque d'appétit et tu t'en fous. Allez, ma jaaxal may jigéen ñi ni ñu bari taman dama la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ani ma jaaxal may jigéen ñi nañuy bari bari kaar rafet ba dee kaar taman dama la naba naba naba naba naba naba naba naba Je t'aime tellement, tellement je t'aime exagérément, tellement je t'aime, profondément, tellement je t'aime, adorément, tellement je t'aime, j'aime tellement je deviens fou. Eh, yéene seen moroom ak euh, crise bi euh, euh, tey fii dina fees dell ak sénégalais yi mën nga ñëwaat ñu waxtaan tuuti parce que waxtaan bi mënul ñàkk Euh, tey euh, tu passes la soirée ak euh, sénégalais yi c'est normal puisque sa anniversaire la 70 ans quand même ça se fête muy parti bu am solo ci dundinu doomu aadama bi nga nekkee tout tànk ba tey nga ñuy bégal sànq wax naa ko nga nekk patrimoine patrimoine mondial la sax ndax Sénégal yëpp Euh, àddina bi yëpp ñoo àndandoo bokk Souleymane Faye bi nga xamante ni tey euh, dafa choisir euh, télévision Futur Média pour ñu célébrer ses 70 ans je rappelle que bu ñu paree waxtaan bi ak spectacle bi yéen di ngeen am possibilité yónnee seen ay message yu souhait parce que Souleymane fay jar na ko et que ba tey maa ngi koy wax ñu ñëpp sénégalais yi kenn ku ci nekk am na histoire boo xamante ni am nga ko soit ak Souleymane ci boppam wala benn ci ay woyam Euh, déglu nañu nag ñetti yi yoo xamante ni euh, c'est des chansons qui nous rappellent beaucoup de ah diggante caabi ji histoire soo gi saa yi ñu ko dégloo suñu yaram dafay daw euh, yëguloo ma nga xam ni itam bokk nañ ci way yi nga xam ne ni da nga koy déglu et puis voilà da ngay am chair de poule. donc Souleymane on est très content trois normaux yi ñuy bee ah. dafa bokk ci ñun quoi ah caabi ji. gi yëguloo ma. fépp fay loolu la ñuy laaj. c' est incroyable. ay nekko dem naa tout ça. je te jure de façon di nga ñu woyal ay nekko dem naa et tout ça. Euh, mais woy yi foo ko jëlee ci. woy yow qu' est ce que lan la lay def le fait que sa woy boo mus a génne rek. dafay bokk ci dafay bokk ci sénégalais yi dafay bokk ci ñun. waa parce que euh, fekkee yow li nga dund ngay woy. ñun mhm. ñëpp ñoo bokk li ñuy dund. dëgg la ñun ñëpp sénégalais xam nga. Mhm. ñu bokk li ñuy dund. Mhm. Euh, le riche et le pauvre ont les mêmes liggéey xarit mbokk santé am suñu leen problème mhm. donc booy way day mel ni des dangay da ngay way sa histoire nit dégg ko foo moom ngay woyal dëgg la parce qu'il a vécu la même chose mhm. parce que on vit que la même réalité mhm. xam nga li ne ci nguur gi moo ne ci kër yi dëgg la li ne ci nguur gi uh-huh. li nekk assemblée moo ne kër ga mais kuy président ci kër gi waa kër gi boroom kër gi <laughs> mais président boo xam ne boo ba mu dégg daaj waaw maanaam di comprendre. Mhm. xam boo nekkee mag. Mhm. da ngay am expérience boo xam ne li ngay muñ yoo rek yaa ko mën muñ. dëgg la da ngay muñ muñ loo xam ne. xale du ko mhm. muñ xale da koy day da ko ne. boo amee soixante dix ans par exemple. li nga mën a muñ ko amul soixante dix ans muñ. di nga mën comprendre yoo xam ne si tu as de fekkee trois générations yi bokkul. je crois que da ngay comprendre sax ba comprendre génération bu tey bii ni ñuy soloog. ni ñuy demee ni ñuy demee yooyu parce que seen life la seen life la am na lu ñu gëmoon pas d'éléphant chimie am na ñu gëmoon ñoom aussi am nañ seen life mais l'essentiel nga accompagner leen ak leen yedd tout le temps rek waaw ah, moytul lii defal lii bu bàyyi ci di wax di ah booy li nice na mais boo defoon ni moo gën foo ñu nekk seen année leen jàppale ci yooyu. ci soixante ans yi ak mm. plus de cinquante ans de carrière yi nga xamante ni am nga ko. Mm. sànq wax nga ko ci euh, soogi balaa ngay tàmbali am na ñu fi nekkoon àndoon ak yow. entre xalam de xalam euh, sa carrière. sa ay euh, sa ay œuvre ñooñu nekkatuñ fi tey boo toogee ci kanamu sénégalais yi di célébrer après plus de cinquante ans de carrière sa ay soixante dix ans. ñoom mm. nekkuñ fi qu'est-ce que ça te fait. bon ñu ñaanal surtout dem yàlla yu mën a di ñaanal surtout ñaanal leen mhm. euh, di ñaan yàlla sàmm seen njaboot di ñu fi bàyyi mhm. ñoom ñëpp dañ fi bàyyi njaboot yow mhm. seetloo xalam li dem dafa bari quoi dëgg la de y trop de gens qui sont partis Cheikh ñoom ñëpp ci benn année bi daal Ablo bu bari dem na quoi mais yàlla mi ngi fi yàlla est là tu vois on peut reprendre tout on mm-hmm. peut mettre ça sur point mm-hmm. mais fi mu ne ils sont consignés là-bas. Mm-hmm. ak euh, l'État yi. ren waroon nañ ñëw mais ak nu mu demee nii. consignement bi ñëwuñu. boo mu ci profité leen leen rek. leen jaale à travers Sogi. mu jaale Prosper Niang. Euh, Ablo suñu bato bi nekkoon Moussa Ablo Burkina Burkina Faso. Euh, di jàllee. Euh, Cheikh Tidiane Tall Seydina Issa Wade Cheikh Tidiane Tall Seydina Issa Wade Moussa Diongo. Moussa Diongo que de grands noms. ci wéyal yàlla may loxo nga dégg te fayoo ko dara. dëgg la on l'oublie mais. ci ñu commencé ci woy xalam ci la. c'est vrai c'est vrai. ci ñi deele yëpp ci mhm. corona bi. Mhm. waaw ah, parce que moom. c'est difficile mais bon c'est un problème international. Mhm. c'est pas. seulement sénégalais. Mhm. les sénégalais comme si Sénégal rek la yem. sax mhm. bi àdduna bi la. Mhm. te lii Sénégal sax li ñu am boo demoon France tey da nga yommi. nga dem Angleterre da ngay yommi. nga dem euh, Suisse Allemagne da ngay yommi. ñun ñu ngi si jàmm ah. bu ñuul dafa dëgër. <laughs> dëgg la. <laughs> ñu fekkoon ne corona bi Afrique dañ ñëppay dee mais der bu ñuul ñu ko yàlla def. di <laughs> ci der bi nii dañ ko fonkle. <laughs> dëgg moo tax ku ko bàyyi ko quoi. parce que ñun yàlla ñu teral. yooyu dañuy duñu feebar. dëgg la de. <laughs> tubaab bu ko yow màggee moom si burul feebar de léegi der yi bokkul. dëgg la yàlla moo ngi may der spécial mais ñu xamuñu ko. mais la moo tax xamuñu ko Souleymane. waaw parce que ñun dañu dañu dañu créer ay complexe. Ah. Ils ont fait croire que la race noire, c'est la race inférieure. Mm Ils ont créé des complexes. Mm -hmm. yooyu mu ngi dañ. Mhm. à feu à force. mu mhm. ngi bu njëkk bu gisee nasaraan da nga eh, di daw di daw si ginnaawam. Mhm. léegi la ñu romb nii kenn du faale. bu njëkk ñu taamu booy bu ñu gisee tubaab eh, tubaab di koy topp di ko daw si ginnaawam. léegi tubaab day romb nii donc on a démystifié beaucoup de choses. Euh, complexité yu bari ñu amoon amatuñ ko. je crois ça a beaucoup aidé ñu ku ñuul soxorul daal. waaw amul yenn problème yi. Mhm. waaw ñun Sénégal dañuy am chance mooy diine bi. Mhm. l'islam bi. Mhm. diine bi ak Christ ñaari ñaari yooyu. la preuve maa ngi gis nga takk nga takk ñaari symbole. waaw euh, takk nga croix. takkal nañ la kurus pourquoi. ma doon bàyyi Fall laa mais Jésus Christ fa fu ma jaar ak moom foo xam ne. Euh, je suis reconnaissant. foo jaar ak Jésus Christ. parce que temps mu ne xamal bi ñuy dañu yóbbu école yu jàng alxuraan fer iji rek ñu yóbbu ñu français. Mhm. donc ak suñu alxuraan sorowul woon soro boo xam ne mën nañu mën liir ay kii. Mhm. ay kaamil ak yooyu. Mhm. donc bon pour m'approcher de Dieu. j'avais une bible dañ ma mayoon benn bible. moom laa daan réconforté woo. moom nga doon liir. foofu la xamanteeg Jésus. ah fa nga xamanteeg Jésus. waaw à la Bible. Eh, bi nga xamanteeg moom am na am na histoire boo am ak moom moom Jésus Christ. ah oui oui. Euh, une fois j'ai rêvé de le mhm. une fois j'ai été béni par le pape Jean-Paul II à Saint-Louis. ah bon à, quand à venu ici. à Rome tu étais parti à Rome. oui j'ai été béni par le Jean par paul II. Mhm. et du temps wu xam maa ngi juddoo euh, Gambetta. waaw plateau. j'avais des copains chrétiens. Euh, yenn saa yi dimanche damay làqatu ànd ak ñoom dem mees. dem mees <laughs> c'est ça loolu moo neexal Sénégal quoi. kenn ko am na dëkk yoo xam ne da dem euh, gis cimetière ñu denc fa julit denc fa catholique. nga gis famille dañuy bokk ndey ak baay. ki nekk catholique ki nekk julit loolu mooy Sénégal. harmonie boobu ñuy dundee. entre ñu bokk religion Sénégal rek la am. Souleymane c'est magnifique dara yàq. dara du ko yàq. laalee chrétien laal nga musulman. dëgg la de bu laalee musulman laal nga chrétien. dëgg de. fii donc moo tax nga ñaari symbole yëpp. waaw parce que bii c'est une reconnaissance avec Jésus. waaw en même Baye Fall la quoi. waaw Baye euh, attan na ko. dëgg la. parce que diine tolérance la. su ma diine attan voilà tolérance diine Baye Fall moom attan na ko. voilà à propos de musique euh, buñ ci ñëwaatee tey buñ de célébrer sa ay euh, soixante-dix ans plus de cinquante ans de carrière je me répète c'est vrai mais nit ki toll ki toog ak man. Euh, moo am dayo boobu samedi soir ñu mobiliser antenne bi yëpp jagleel ko spécialement Souleymane fay pour célébrer euh, anniversaire am ça se voit que euh, ñun ñoo ko moom li nga def ci ay œuvre bëri na mën nañu déglu sa ay œuvre ba fanaan fii mais parmi œuvre yëpp yenn saa yi nga jur doom njaboot am ci kenn koo xam ni doo ko wax kenn waaye day doon sa xol parmi li nga def yëpp lan moo nekk sa xol ban musique moo nekk sa xol par exemple wala ban scène nga dootul fàtte je ne parlerai pas de Louis Armstrong ak yenn ci euh, scène yi nga jot a def mais lan moo la gën a neex ci li nga jot a way boobu ba tey. li ma jot a def. Mhm. la chanson qui m'a beaucoup ému c'est Xarit. Xarit pourquoi Xarit. que j'ai vécu l'amitié je sais ce que c'est l'amitié un ami sincère un ami c'est fort. Mhm. bon euh, ku am xarit dëgg dëgg dëgg loo xam xarit lu muy tekki. dëgg mais xarit bon ñaari xarit yu góor c'est très fort. Mhm. ñaari xarit yu jigéen c'est très fort. Mhm. donc euh, relation entre xarit nag. Mhm. souvent il se passe des choses yoo xam ne. Euh, c'est très compliqué. parce que xarit dëgg mën na def loo xam ne lu métti lay doon. xam nga donc euh, mais sa xarit la. tu donc li koy muñal la ko muñal keneen. des fois xarit def lu métti. loo xam ne mm-hmm. bu keneen defoon nga xeex ak moom wala nga porté ko plainte dem mm-hmm. police. Mm-hmm. mais comme sa xarit la. da ngay jéem a gérer d'une autre manière. xarit dafa fort. donc euh, j'ai chanté l'amitié quoi l'amitié sincère. parce que l'amitié. xarit boo xam ne bon. bu àndee ngeen bu neexee ngeen ànd bu naqaree doo ko gis. dañu xarit boo xam ne il est constant. amee ñàkkul lu ñàkkul lu parce que Pape Cheikh mooy. mooy lii muy laa mhm. mais Pape Cheikh xaritam la tout court mhm. mais du xool leneen benn intérêt du xool jëmm ji rek boo koy intéressé jëmm ji xaritoo jëmm ji mu am solo mhm. pas li mu sol li mu yor ci poosam ak fonction ak darajaam mais nit kese noonu la ñuy jàppee nit nit kese tout nu nit kese waaw sans tout kese noonu la ñuy jàppee nit voilà donc xarit euh, mooy euh, parmi toutes tes chansons. tey ci soixante-dix ans yëg-yëg la yoo xamante ni. c'est c'est de l'amour en fait. waaw c'est de l'amour c'est vrai. c'est de l'amour entre mhm. deux hommes. Mhm. mais différence bi mooy bon c'est de l'amour fraternel. Mhm. amical. profond. on se dit on se dit tout. on se dit tout on se dit tout on se cache rien. on se dit tout. chacun a besoin de l'autre. rien n'est l'autre personne n'est plus important que l'autre. waaw loolu mooy xarit c'est important. Mhm. Mm, mm, mm. donc xarit bi nga euh, ko bi ngeen ko réalisé waatee def ko clip. c'est ce qu'on est en train de regarder en même temps parce que way la bu la marqué euh, way bu yàgg la mais Doudou Ndiaye Rose daf ko fekkee ngeen tëggaat clip bi loolu itam ça a marqué tous les Sénégalais oui parce que euh, quand on a fait le clip il est encore vivant mm -hmm. donc euh, quelques mois après la wàcc liggéey alors ñu bari lañ foog ne c'est hommage à. Papa, alors que. À, ah, hommage à Papadou Nieros. Ah. Orkono. Ah c'est quoi. Orkono c'est un clip qu'on avait fait avec lui avant son décès. d'accord. c'est pas pour lui rendre hommage. parce ouais. que Dounieros tout le monde sait que euh, tout ce qui est sur la culture rythmique. en contrepartie du rythme sénégalais. Mhm. yóbbu na ko foo xam ne kenn yóbbu ko fa. dëgg la dëgg la waaw góor googu yàlla suuf sedd ci kawam. amiin amiin donc. Euh, on l'a invité sur le morceau. Mhm. parce que morceau morceau euh, xarit bi bàkk la. Mhm. bàkk ràccaag gin ràcc càkkat gin bu mbër yi léewtoo noonu. waaw. Mhm. Ah? waaw di di di tuus. tuus. bu ñu tuus noonu. rythme boobu lañ ñëw def ko musique. d'accord mu jur xaj jur xaj c'est Doudou Rose. Euh, waaw ah. vieux cinq fay ñoom Mbaye Gueye fay ñoom. tout voilà cette famille là. tube planétaire en tout cas. saa yu ñu ko dégluwaatee suñu yaram dafay daw. c'est euh, traditionnel Souleymane xarit donc mm. mooy œuvre yi la par parmi nag. Mm. Euh, sa ay xarit. Mm. Euh, tase nañ ci ak kenn. muy Youssou Ndour. Youssou waay ma bëggoon ñu déglu. ay témoignages am. puisque ñu ngi ci partie bu am solo. muy diggante nit ak nit. xarit ak moroom ba. te Youssou Ndour. ku ne xam na ni xaritu Souleymane fay la ñu déglu ah, euh, tey ci anniversaire bi 70 ans yu Souleymane fay li Youssou Ndour wax